fan la Adji Sarr nekk jamono ji doon na laaj bu ñëpp di samp depuis nag ba mu tuumalee Sonko wàllum viol ak menace de mort ba porté ko plainte ca section de recherche de la gendarmerie bu Colobane ba tey rek kenn tegu ko gët rawatina xam fu ko jant bi tiim bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome daal dinay placé Adji Sarr sous protection policière ngir lu la kaaraangeem li ni mel nag jëwriñ bi mi ngi ko def ba gisee ak moom ministre de l'intérieur ba noppi euh, moom moomee nag di jëwriñ bi démb ci ngoon la dalal collectif bu ëmb ay avocat wu kuy tuumal njiital pastef bi euh, wàllum viol ak menace de mort ñu daal di koy jébbal sax ñoom ñoo ñee avocat ya ab bataaxal bu ñuy sàkkoo kaaraange jëmale ci seen cliente bi di aji Sarr euh, bu ñu sukkandikoo ci ay avocat wu Adji sax nag depuis ba mbirum suite boote bi la éclaté ba tey seen cliente bi di Adji Rabi mi ngi wëyee bu rëy lool bés bu yàlla sàkk ay menace de mort ah, si noonee eh, ministre de l' intérieur mu yor réew mi yëpp ah, dal di leen di nangul lu ñuy sàkku dal di décider ah, placé kii di Adji Raby Sarr sous protection policière gannaaw ba ki nga xamante ne ni moo di Antoine Félix Diome ministre de l' intérieur nanguwee rek lu ko ay avocat wu Adji Adji Sarr demandé ba tax mu dal di jël Adji dal di koy mettre sous protection policière bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi fi mu nii Adji Sarr ñaari intervention polyvalente bu police ñoom ñoo koy garder ngir rek lu ñeel kaaraange ma dinañu toppandi nag xibaar bi ba xam ana fan la bi la mbir di mujjee